jëf kumpa gi rey ñu bari ci man mbër la Macky Sall di tànnal waa Benno Bokk Yaakaar journal L'Observateur xëy na di ko luñutu ak di ko luxumbut bil yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne ki Macky Sall bëgg a teg candidat lay doon bu jeunesse bi wekki yaakaar candidat lay doon bu am ak image bu rafet ci réseaux sociaux yi boroom jikko ju rafet lay doon ab liggéeykat lay doon te it ku dégg ndigal lay doon la yéenekaay di xibaar ne àjjuma joxe ngir wax kan lay tànn ne candidat Benno Bokk ko du yegg dégg ajjuma ne balay booba Macky Sall nee na dinañ wax kan la ki ko war a tànn di Macky Sall journal bi mi ngi ñuy wax ne alliés yi ci Benno Bokk Yaakaar jox nañu ko seen kàddu ci ndajem conférence des leaders bu Benno Bokk Yaakaar bi woon démb fa la ñu xam le ne jox nañu carte blanche président Macky Sall ku mu tànn kooku la ku mu joxoñ kooku la ci ginnaawam ca la ñuy topp réew mi quotidien nañu ñoom waa Benno Bokk Yaakaar lu ñuy def nañ ca gaaw ndax jamono ko ñongo ca ndax Macky Sall ba mu xam le ne du bokk ci wote exécutif national bu APR ginnaaw gisem bi woon ak conférence des leaders Benno Bokk Yaakaar bi woon démb njiitu réew mi di njiital coalition Benno Bokk Yaakaar mi ngi waaj am ndaje diggam ak député yi bokk ci coalition Benno Bokk Yaakaar Walf Quotidien gis ni mbir yi du yomb ci allié Macky Sall ndax jamono ji wute wuñu ak ñooñu rocc seen agro ndax ci ki ñu wéeru woon wékk ci moom wékkoon ci moom yaakaar di Macky Sall rocceeku na ci jamono joojee journal Sud wax ci xëtamu njëkk ne waa APR di parti Macky Sall bi ñoo moo di seen tekk joojee duñ ci mujj calme avant tempête tàmbali na feeñ xaat ca Fuuta ne ca foofee defante ba ma nga fay wéy ci diggante Arouna Dia ak Farba Ngom ñu wéy ci xët mu njëkk direct news gis ko fa moom Farba moom ak Abdou Latif Coulibaly seenu doxalin moo jaaxal journal bi ba tax mu xëy di ko waxtaane ndax bi président Macky Sall waxee ne du doon candidat 2024 boobaak léegi amul kenn ci ñoom ñaar ku ñu dégg mu yëy yàbbi ci te du jukke juñ leen xamee ñu xamee ci xët mu njëkk Le Quotidien waa Pastef nee nañu samedi ji la ko yéene kay bi Vox Populi dolli ñu ci ne ñoom waa Pastef ñoo ngi ko fas yéene def ci am ndaje mu ñu tuddee giga meeting bés bi le tuddee ko investiture par contumace donte Alaaji Malick bu parti Pastef mi wax ci yéene bi ne bu bés ba Ousmane Sonko dana teew ci meeting d'investiture bi le mandat nañu Ousmane Sonko ak ëllëgam ci wotey yi leeragul waaye li mu bëgg moom Sonko moo di forcer ab destin ñi seenuk ëllëg lëndëm dëgg ñoo ngi ci journaliser réew mi lañu yu tolloon ci ñetti téeméer yu doon daw coonaak misère bi am ci réew mi ba far réer ci géej gi ñu dellu ci jéeri ji xooli soleil national benn xale bu jigéen bu naan Yacine Fall moom la journal bi xëy Yacine Fall ab élève la bu def jaloore ju rëy ci examen baccalauréat ren bi ci lycée Ndande ga ca Kébémer fa lay jànge journal bi dañuy wax ne moom Yacine Fall bi muy def BFM 2020 moo ne woon meilleur élève ci Sénégal ren jiit bi muy def bac wanewaat na na bagam ak moyenne bu toll ci 17,96 ak mention très xale bu jigéen la boo xam ne yoonam nekkul ci ay réseaux sociaux téléphone portable sax amu ko nee na su màggee médecin la bëgg doon bay leeral ci l'observateur lan moo tax mu bëgg koo doon beneen ab élève ci beneen ab yéenekaay yër leen xët mu njëkku libération élève bi ab xale bu góor la bu ñu gaañoon ci bët atum ci ay manifestation yu amoon ci lycée Malick Sy Amadi Touré la tudd yéenekaay bi nee nañu tribunal condamné na état bu Sénégal ngir mu fay xale bi ñu yàq bëtam xaalis bu toll ci téeméeri million abonné leen ci suñu chaîne YouTube ngir jot saa su nekk ay réew mi ak ci bitim réew.